ma ziar leen bu baax a baax bëgg leen ànd beeg Aladji Malick TV am na solo lool ànd boobee yàlla na jëm kanam ci xibaar yu wér te wóor yi nga xam ne yéen a koy taataane fii ci seen bu mag bii di seen télévision Aladji Malick TV Real Madrid wane na yoonu football gone yi ànd Carlo Ancelotti vraiment kontaan nañ ci ñoom képp kuy seetaan football war nga xam ne taxawaay bi am na solo ñu sant leen bu baax a baax gis leen kii di Bellingham di ki nga xam ne moo tax équipe bile di Real Madrid am ndam. ndam loolee nag nekk lu yombul ndax football nañ lu toll ci juróom-ñeent fukki minutes. ba toftal ci ay minutes loole nag ki la lijjantee li nga xam ni mooy coono bi nga xam ne ay équipe amoon na ko moom it mu am taxawaay boo xam ni bu am solo taxawaay boobee di wane ni maanaam bëgg naa yanu Real Madrid te jënd bi ko Carlo euh, jënd bi nga xam ne moom la ko Florentino Perez def euh, fële ca Dortmund jënd boobee daanaka sànniwul xaalisam ndax euh, simila ak Sala bu àndeek dogalu borom bi laf cat ci moom juróomi ñeenti match yi mu mujj football dugal na ci juróomi bit waaye nag loolee dafa am lu ko gën a neex ndax yanu gi nga xam ne yàllu na ko équipe bi te du neuf te neuf bi ñu doon xaar muy Karim Moustapha Benzema euh, nga xam ni jóge na fi ñuy xaar mbappe loolee tamit daanaka effacé na ko waaye ñi tooguloon ci terrain bi di fëyi fëyi ñu mën cee jàpp Eder ni si Junior ak kii di Arda Güler ndax boobee match bi dara xewagul gars yi sonn na di muut muuti fa nañu dem fa ndax am yéene seen équipe gagné équipe boobee nag def na ko ci jàmm ak salaam waaye ba tey jàmbari fàkk tëdd ji juróom match yi mu football ngeen gis ko noonu Jude Bellingham nekk ki nga xam ne moo njëkk a def ginnaaw Cristiano Ronaldo ba mu jógee ca équipe ba match yi mu football ci championnat bi match yooyu yëpp daanaka mu dugal ci ay but loolee nekk lu njëkk avant Cristiano Ronaldo wala après Cristiano Ronaldo City rajaxe na ko moom mii di Bellingham wala moom mii di kii di Erling allande ginnaaw ba mu defee li nga xam ne mooy jël UEFA bi nga xam ne footballkat bi gën a xarañ ci Europe jox nañ ko ko léegi nii war na di wane ni loolu lay soxlawuma ko daanaka ak ndorteel la ci man triplé la fëgg ci taabal yi digganteem ak euh, Fulham ak équipe ma gagné juróom ci benn